min dinaarihi ci dinaaram min dirhamihi ci dërëmam min thawbi bismillah barakal khadim thumma innaha top naka qissa ba modi ha bobu ci innaha am ñu koy delo ci al qissatu batay am ñu koy delo ci baatu ummatu xeet bobu mu tuddu talib bo xamni xawon na kafuhoo tengam ta jusu di lot han ha ci yanu ko ba li fi nek sax xad hajjasat lot na ca suma ha topp toftaloo annas nit ni hatta raaytu ba gis aw may ni ñaari jal min min ci aw ñam wa siyaabin ak yére raaytu ba wajha rasulillahi kanam yalla bi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yatahallalu muy deug ka tali ka annahu danaka mom mudhabatu luñ wurusal la ni wurus fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man san ko xàll fi islam ci islam sunnatan aw yon xasanat mudi ajra fat rafet fa lahoo ñeel na ajruha yolam ba wa ajru man ak yolup ka nga xamni ne xamila jefena biha ca mom min ba adihi ci gannaawam min xëyri an yanqusa ci ludul muy wàññiku min ujurihim ci seen yool seyum dara wa man sànn ku xàll fil ci lislaam sunnatan aw yoon sayi atan wi ko nekk àllihi ko wésruhaa bàkkaaram ba nga xam ne xami la jëfe na bihaa ci gannaawam min xëyri an ci seeni bàkkaar cheyun dara naqasa day jàggate nga bañ a jàggati fii moom cheyun ji mooy faaxilam ci kanamam rawaahu muslim abu hamrin mooy dàkkentalu ki nett li jarir ibnu abdullah nag mooy turam dane dafa am bis ñu dem ba bëccëg bi sori lu nekk nag fi yonante bi aw nit ñëw ñoo xam ne daal ñu rafale rafale ñu ndax yére ngënal yu def ay rëdd lañu xar rek sol ci seen bopp daal di ko wax ñu ëpp ci ñoom waa mu dar lañ farne ñoom ñëpp sax waa mu dar lañ berante bi gisee nag ni ñu ñàkkee ak ni ñu aajoo ku leen dimbale te gisul kenn dimbale leen nag mu daal di feeñ ci kanamam lool kanam mu soppi ko mu daal dugg ci biir génnaat daal di wax bilaal mu nodd ak bilaal noddu liqaam mu dal julli bam julli ba nopi nak mu dal di khutba nit ñi jang na ñaari lay ya yuhanna naasu rabbakum ji nga xamne mo nek ci ci njëlbeenu suratul nisa jàng it be bee ci suratul hasri ya ilisna mu no jooju mu ne yeen ñi gëm yalla ragal leen yalla te kenn ku ne setlu lam ba àll ñëw ba waxee lii nag mu daal di ne kenn ku ne ci yéen lu mën a saraxe ngir yàlla rek na ko def ku man diinaar ku man dërëm ku man yére muy mbalaan ku am lu mën a saraxe ci bele doonte saax la wala ci tàndarma lu waaye mën rekk na ko saraxe doonte xaritu tàndarma la ba waxee loolu nag am ku bokk ci wàllan saar ku indi mbuus moo xam ne daal ci lu wér-wér moom te nga mënu ko yore ndax fees gam fees kooku kon xam nga wane na aw yoon xam nga dañu wane ni kooku xaal na aw yoon ndax ndegam dañoo digle saraxe bu indi lu toll noonu nit ñi daal cee topp rek nag di joxe di joxe di saraxe ba mujj lañ fa joxe doon ñaari jal yoo xam ne lee xeetu lekk la lee xeetu yére yu mën a sol la nee boobe laa gis nag yonante bi kanamam tàlli lool mu bég lool mel ni wurus daal di wax nag addis bii ne lislaam day ku ci xàll aw yoon woo xam ne yoonu tuyaaba la ñeneen roy la ca def na yow yàlla da la fay sa tuyaaba yi bopp ba noppi fay la tuyaaba yi mboolem ña nga xam ne ñoo roy ci lu baax loolee nga def te lu tax ñoom ñoo ñee seen tuyaaba dara wàññi ko ca gannaaw bu la yàlla fayee sa tuyaaba da lay fay tuyaabee lim bu toll ne ña la ca roy ca aw ca yoon wa ci def la nga def te du tax nag loolee wàññi dara ci seeni tuyaaba ñoom mu ne waaye safaan ba it noonu la ku xàll aw yoon wu bon def bakkaar da ciy gàddu bakkaar ba noppi ku ko roy ca loolu def bakkaar ba mu daldi gàdduwaale bàkkaarub kookee te lañ koy siyeen ci bàkkaar ngir ko roy ci moom du wàññi bàkkaaru kookee ko roy ba def la mu def qawluhu mujjitaa biin nimaari huwa bil jiimi wa baxdal alifi baa un baa mu waxadatu di buñ tom benn tomb nee na mujjitaa biin nimaari boobu boo ko di bind da ngay bind jiim bu àggee ca mujj ga da gis gannaaw alif ga ñu def fa baa mi benn tomb wan nimaaru jam fu namiratin wax ya moom kisaawun koddaay la min suufin bàyyi ko ci ngënal mu xattatin bu di buñ defal ay rëdd wa max naa mujjitaa biihaa max naa mujjitaa biihaa mooy ay laabisiihaa way solam xadd xaraquuhaa xotti nañu leen alaaru ausim seeni bopp bu ne mujjitaa bi nimaar daa bëgg wax ne ay yére yu ñàkk solo bàyyi ci ngënal daa ami rëdd moom lañ xar rek noonu sol ci seeni bopp mel ni ay laaya ñëwuñu ko defuñu ko dara ndax ñàkk guñ ñàkk rafle ñu rafle wal jaw bu baatub al jaw bu alxatxu mooy ak dagg soo xoon fee bu jitaa bi nimaari bu jitaa bi jooju lay wane ne mi ngi bàyyikoo ci jaaba ya jawbu te al jawbu toog lay firi wa min fu bokk na ci qawlu wa taala wa zamoda allasina ña nga xam ne jaaboo nañu as-sahra wa bil wadi ci khurwa ay nahatuhu yatton nañ ko waqatuhu te ñu ko wa qawluhu tamahara huwa bil hayni nek na ci hayn ba al muhmalati bari buñ neenal ay taghayyara soppiku na Tamahara bobu nee hayn bi kenn du ko tomb soppiku lañ ci jublu moy kanam mu soppiku yonante bi ndax rek am metti dol ci ni ñu mel wa qawluhu ra'aytu kawmayni bi fathil kafi wa dammiha ay subratayni ñaari joon subratayni ñaari joor ba ñaari jal kawmayni kaaf gi mën na fata mën na damm al qawmu defiri jal mu tasne ko muy ñaari jal muy ñaari joor wa qawluhu ka annahu mudhabatun huwa mum bi dal nek na ci dal ba al mu'jamati bari biñ tombu wa fatil hay ak fata haga wal ba wal bay ak baba al muwahhadati bari biñ tombu ben tombu mubhabatun boo ko dee bind daal bu tooy lay am gannaaw miim gi ñu def ci ak kubéer ak baa te yaar yépp dañuy fataa qaalahu alqaadi xiyaad wa xayruhu wa saxafahu soppi na ko baaduhum lenn ci ñoom fa qaal te mu wax mudhunatun bi daalin ci daal muhmalatun bu di biñ neenal wa dammil haay ak damm xaaga wa bi nuuni ak ca nuun ga wa gazaa niki nii sax dabataxoo la ko takke woon alxumaydiyu wa saxiix waaye aj wér ja al mashhur ja luñ siiwal huwa moom al awalu muy aji jëkk ja wal muraad lañ namm bi ci moom xal wajxay nit ci boo mën topp ci yaari anam yi as safaaw mooy ak sell wa istinaarat akuk leer nee na lim ne ka annahu daan kanam yonante bi mudhabatun daa mel ni lu ñu wurusal nee na mudhabatun ni mu la waxoon noonu lañ koy bindee am na nag ñu ko soppi def ko mudd huna tun def daal gën tombut teg ca al kubéer gu ñuy maas maas ko ak noonu gu ñuy fataa waaye la wóor daal mori mudhabatun ji njëkk a wax ak lu mën di am maxnaa mi mooy kanamu yonante bi rek tàlli lool dëgg lool ci liñ def ba mel ni wurus ca nam selleeg na doon leere wa an ibni mas'udin radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi qaala laysa min nafsin amul ben bakkan tuqtal boobu def na ko rey zulman ci ak togn illa kana ndare bu nekké xala bi ni di war doomi adama ja al awal ji aji jëkk kifilin cieur ngin min ha ci deretam li annahu ngir naka mom kana aw wala man di aji jek ko xamne ne xalna al qatl ray bakkan muttafaqun alayhi alquran net lina ñaar doomi aadama yooyu kenn ki tudd qabil kenn ki tudd habil qabil nag mu ne ibnu masud ne na woon bi da waxal ne ku ray nit ci togn rek gaddu nga bakkar bu ray waye doomi aadama ji ñeuk def lolu nga xamni moy ñeuk ray rey bakkan ci ko suuf gannaawam ku reyati bakkan ci togn rek mu amé ci bakkar te du wañu dara ci bakkaru ka bakkan ba xam ne kon doomi aadama jooju muy xaabil moo njëkk a def bàkkaar bu rëy boobu muy rey bakkan gannaawam nag ku ko defati ba addunay tukki ku reyti bakkan ci tooñ rek moom daañu ko ci bindal bàkkaar ndax moo xàllu noowu yoon du wàññi dara ci bàkkaaru ku rey bakkan ma baabu li ab bunt la fi dilaalati ci ak tegtale xalaa xëy din ci aw yiw wadduxaay ak wadduxaay ak woote ila hudan jëm ci jub aw dalalet nu wala ak reer muy cànkute day wax ci buntu bi ku wan nit ñi lu baax bañ def ko woo leen bañ gindiku aw ci yoonu yàlla te bañ a sànku tiyaaba ja ngay am ak xaala taxala wadduxu del woote ila rabbika jëm ci sa borom lu ma nga ca alqasas laaye ba tolloog juróom ñett fukk juróom ñaar wa qaala taxala udduxu wooteel ila sabili rabbika jëm ci yoonu sa borom bil hikmati ci hikma wal mawhizati ak waare ga al hasrati gi aji rafet wal ma nga ci suratu nahli laaya ba tolloo téeméer ak ñaar fukk juróom wa qala ta'ala wa ta'awanu dee leen dimbalante xalal birri ci ak mbaax muy topp yàlla wa taqwa ak ragal yàlla wala ma nga ci suratu naida te mooy laayab ñaareel ba wa qaala taala wal takun na am na nekk minkum ci yéen ummatun mbooloo yaddu xoona moom danañu woote ilal xayri jëm ci aw yiw mu ne suñu boroom daa digal yonant bi mu woo jaami yàlla yi jëme leen ci seen boroom am fu mu ko ne tee woo jëmee ci yoonu sa boroom te wooxee leen ci xikma ak waare gu rafet suñu boroom digal jaami ñi ñu dimbalante ci ragal yàlla ak topp ko te moytoo dimbalante ci bakkaar ak tooñ am fu na am ci yéen ñoo xam ne ñuy taxaw taxawaayu di woo nit ñu jëm ci lu baax te mooy di déglu lu baax di aaye lu bon loolu lépp alquran la waxan abi mas'udin uqbat ni amrin al ansari al badri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل كتكتلي على خير أو يوم فله نيلنكو مثل أجر فاهبه كم يولب أجد في يوم رواه مسلم أبو مسعود موي دا كنتلوي عقبة بن عمرو موي تروي موم مو ني يرونتي بي دا واخون ني ku tektal nit lubah bax mu def ko yalla fay la tuya ne jam koy fay mom mako def wa han abi hurayra radhiyallahu anhu an rasulullah ali sallam qala man daha ku wote ila hudun jom ci djub kana kon nek la hodi ko ñeal min ajri ci abiyol min ajri mislu ujuri man kem yooli ka nga xam ne tabixawoo topp na ko laa yen xusu du wàññi daalika loolee min ujoorihim ci seeni yool chey dara wa man daxaa ku woote ci ak cànkute jëm ci réer kaana ko nekk àllahi di ko war minal ismi ci bakkaar mislu asaami man kem bakkaar yi ka nga xam ne tabixawoo topp na ko laa yen xusu du wàññi daalika loolee min asaamihim ci seeni bakkaar chey an rawahu muslim abu hurayra mo net li mom hadith bi mu ne yonent bi dane won ku wote jëmi ci njub ci lu baax am ñu la wuy ci yaa lay fay tuyaa ba noppi nag seet mboolem ñi nga xam ne ñoo la fekk si ca lu baax loolee nga woo ñu wuy si kenn ku ci ne na lim ba toll rek yàlla bindal la tuyaaba yu toll noona te du dara ci jëmi safaan ba it mooy ku jëm ci cànkute jëm ci lu baaxut ci ciy gàddu bakkaar ba noppi ñu xool na lim ba ko fekk ci ca bakkaar boobee ca ndëngte googe càngute googee ñu lim ba toll rek daañu ko fay ay bakkaar yu toll noonu te du wàññi dara ci bakkaar yi ñoo ñooñee def ni moom fekk ko ca lu bon loolee mbaa ci yoonu cànkute woowee waxan abil Abbas sahl ibni saadin as-saaidi radiyallahu anhu anna rasulullahi naka yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala waxon na yawma khaybara ci bisub khaybara ne la u'tiyanna giñ naan dana jox arraayata drapeau bi xadan ci bu ëllëgee rajulan waay yaftaxu ko dana ubbee allahu yàlla ala yadayhi ci yaari loxoom yuhibbu day sopp allah yàlla wa rasulahu akum yonanteem wa yuhibbuhu te koy sopp allahu yàlla wa rasuluhu ak yonenteem fa baatate fanaan annaasu nit ña yadoo koona di xuus di xuus mooy di waxtaan ci kan lay doon laylatahum seen guddi googee len nu xuus ci di wax naa ayyuhum ana kan ci ñoom yootaaha la dee fi ko jox raaye wi fa lamma asbaha ba xëyee annaasu nit ña xadaw xëy nañu ala rasulillahi ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum képp ci ñoom yarjoo dana yaakaar ay yu'taha bu def ko ko jox fa qala mu ayna ali ibn abi talib ana ali ibn abi talib fa khila wahis ko ne ko ya rasulullah huwa mum yashtaki dana jambat ayna hi ñaari beton qala mu ne fa arsilu yonne len ilahi jëm ci mom mana fa utiyata bi ci mom moy ñu andi aliyu fa basaqat tifli rasulullah yonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wasallam fi haynayhi ci ñaari ñaa ودعاتي من يان له ونيلكو فبرأتي موير حتى كأن لم يكن دمال مستنك به جمعون وجهون وين متيت فأخطاه تمو جوحكو الرأي تدرابوبا فقالت وقت حليو حليو رضي الله عنه ويا رسول الله أقاتلهم دم يخيخن تنيوم حتى يكونوا بنيك مثلنا لكم نم فقال منك أنبث ويل على رسلك جسد دفن دانك حتى تنسل ببغي واجه بساحتهم شن أت سمدهم توك إلى الإسلام جم جن الإسلام وأخبرهم تنغ خبار لين بما تلان خمني يجب دنور عليهم تنيوم من حق الله أقيال تحالا قوين فيه جمون فوالله واتنا لا ان يهدي بجبل الله يالا بكت يو رجلا واي واحدا جري جن خير موغن لك نيال من همر النحامي تتاني في جري كري تاني في جري كري يوم يغلي بي nasara bi waxna ay min an takuna laka humrun naam wan naamu al ibilu wal humru minha anfasu amwalil harabi muttafaqun alayhi hadith bob mom muslim ak bukhari yep an nañ ko abul habbas moy dakentalu ki net wi sahlu ibn sa'd moy turum mom mo ne ci bisu khaybar yonent wi da wat ne bu xëyee bu ëllëgee dana jox drapeau bi koo xam ne ci moom la leen yàllay maye ngañaay ci ay loxoom la yàllay jaarale ngañaay li jox ko jullit ñi te kooku day doon koo xam ne day sopp yàlla yonante bi yàlla yonante bi sopp ko ñu fanaane ci guddi gi nag ñoom saxaaba yi nit ñi fanaane di waxtaan nag ci ana doon ci ñoom bu subaa bañ xëyee ñoom nit ñi ñëw ci yonante bi kenn ku ne yaakaar ne yow lay doon mu ne ana Aliyu ñu ne ko moom day dafa wànneen mu ne nañ ko woow mu ñëw woo ko mu daldi ñëw yonent bi tifli ci bët yi rek ñaanal ko bët yi daldi wër fi saasa saasa mel ni mësta wànneen mësta am wenn metit mu daal koy jox nag drapeau ba yi ne ko damay wéy di xeex ak ñoom bañ def li ñu def mel niñ mel ne ko da ngay dem def ndànk bo demé ba àgg ci ñoom bu jekki-jekki songu leen da nga leen njëkk wo ci l'islam wax leen lan moy l'islam ak bu nangoo bo wuy ci l'islam lan mo leen di war ndax ne ko xex bi limuy bax bax su mané ñak mo gën ndax yalla gindé ci yow kenn ni rek bam mu ci yoon wa mo gën ci yow lepp aduna ak la gëna a ci aduna da koy wax rek yalla gindee kenn ci yow maanaam yàlla gindi kenn te ci yow la ko jaare dafa rëy lool bari tuyaaba lool ba ëpp ëpp solo lépp bon ko ne ko nag kon nga njëkk woo ci lislaam boo xam daañu nangoo wuy siyam déet xeex baay mujj waaye kenn du jiital xeex bi loolu tegtal la ci ne kon xamal nit yoonu jub mu aw ca lu rëy rëy la loolu mu daal di addis bi rek moo tax moo indi addis bi fa wallahi la an yahdiya la bika rajulan wahidan jooju ولا عندي مثال مي لو تخ ني عندي حديث بوبو قوله يدو كون موي اي يا خوبونا دا نيو خوش ويتحدثون تي ني وقتان قوله رسلك دا نيكون على رسلك بكسر الراي وبفتحها منا نيك رسلك منا نيك رسلك لغتان نياري وخين لا سي بات بوبو والكسر واي كسرغي افصح مو غن رفت غني على رسلك مو غن على رسلك waxan anasin radiyallahu anhu anna fatan naka asjam min aslama ku bokk ci waa aslam xaala waxoon na ne yaa rasulallahi indi naka man urid dama bëgg alxaswa xare ci yoonu yàlla walay samaxi te dir mi ànd ak man maa loo xam ne ata jahasut naa mën a waaji bi ci moom xaal mu ne ko iti dikkalal fulaanan diw fa innahu naka moom xad kaana nekkoon na te jahasa di waaj fa marida te mu tawat fa ataahu mu dikkal ko fa qaala mu ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uka dana la jàngal asalaamu nuyoo ba mooy mi ngi lay nuyu rek ba yàqul te muy wax ne aati ni jox ma allazi la nga xam ne te jëhasta waaje woon nga bi ci moom fa qaala mu daal di ne yaa fulaanatu yow diw mu jigéen aatihi jox ko allazi la nga xam ne te jëhastu waaje woon naa bi ci moom wala tax bi sii te bul téye min ci moom sey an dara fa wallaahi waat naa ci yàlla laa tax bi sii na doo téye min ci moom sey an dara fa yu baaraki te dee fii defal barke lëkki ñeel la fii ci moom rawaaxu muslim mu ne anas moo nettali benn waay bokk ci waa aslam daañu yonante bi man day damaa bëggoon dem ci xare bi waaye awma ab yóbbal yonent bi ne ko demal ci diw moom waajoon na ba bëgg dem waaye dafa tawat mënta dem tax boo demee moom mu jox la waajtaayam yow nga dem mu ñëw ci waajooju ne ko yonent bi day mi ngi lay nuyu moom wax ne ma la nga waaje woon bu bëgg dem te tawat ji dal la dang ma koy jox man mi nga xam ne mën na maa dem kooko dégg ndigal lool daal ne yow diw mu jigéen waxuñu ba xam soxnaam la mbaa waaye dana ko yow diw mu jigéen lolé mu waji won ngir dem andi ko jox ko ki te bul ci téye dara dara dara lo ci téye kat du mu amal la njariñ du tax mu amal la barke manam lo ci téye itam yalla du ci def barke babu taawuni li moy buntu dimbalante halal birri ci lu baax wa taqwa ak ragal yalla day wax ci buntu bi julit ñi ni war di dimbalante ci lépp lu yàlla bëgg ak lépp lu di ragal ko ak topp ko fuñ luar war caa dimbalante loolu lay wax qaala allahu taala wa taawanu dimbalante leen xalal birri ci lépp lu baax wa taqwa ak ragal yàlla ma nga ca suratul maida tolloog laaye ñaareel ba wa qaala taala wal xasri giñ naa ci jamono innal insaana naka xeetu nit wépp la fi xusrin nekk na ci perte illa alladina ndare ña nga xam ne aamanu gëm nañu wa xamilu te ñuy jëf asaalixaati jëf yu yiw ya wa tawaasaw te ñuy dénkante bil xaq ci dëgg wa tawaasaw te ñuy dénkante bi sabri ci ak muñ ay awsaa baaduhum baadan bil xaqi ay bil imaani wa tawxiid bi sabri mooy ay xalat taaxaati wa xanil maxaasi daa tàmbalee ci laaye bi ne wa taxaawanu xalal birri wa taqwa dee leen dimbalante ci lépp lu baax di dimbalante ci li yalla bëgg ci yeen moy ragal ko moy to dimbalante ci bakar mba togn mba lu ko nuru moy la ne wala tahawanu hal ismi wal udwan ak saru wal hasri mu ne giñ ci jamono ne doomi aadama yépp ci perte lañu nekk bam dess ña nga xam ne boole gëm ak jëf ju yu te fuñ tollu di denkante gëm googu ak jëf ju yu ji di denkante muñ ci taqoo lu bax ak sori lu bon ak muñit ci lépp leen yalla tek muy lu ñi boole lolu gëm ak sax ci la leen war tey denkante gëm googu ak sax ci la war tey denkante it muñ lepp luñu wara muñ ñoñu rek ñoo pertut waye ku bokk tay ñoom mi ngi ci perte gi lolu moy suratul hasri da ko andi lepp mom tambale ci laaya ba ci jëkk ba ci ba ci mujj muy bub ñettel ba qala al ash-shafi'i rahimahullahu wax na kalaamun wax ma'naahu joj maxnaam mooy inna naasa naka nit ñi aw aksarahum mbaa la ëpp ci ñoom fii xaflati nekk nañ ci càggante xan tadabburi haadihi suurati wali setantal wile saar al imaamu shaafi dane saar wi li muy gàtt gàtt doy na sëkk bu ci yàlla yemoon it mu doy sëkk waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu setantal saar wi ak limu ambo han abi abdurrahman عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهز كواجل غازيا أجنم خارجي في سبيل الله تيون يالا فقد غزا kon mel na ni xare na wa man khalafa qutu gaasiyan aji xare ji fi ahlihi ci ñoom bi xayrin ci ay yiw fa khad ghasa kon mel na ne dem na ci xare ba muttafaqun alayhi ku ñu wax abu abdirahman ci dakental mu tuddu zayd ibn khalid mo ne yonent bi neena won ku fekk ku jëm ca jihaad ja mu jox ko lu mën a yóbbuloo moo xam ngànnaay la moo xam leneen lu ñuy jëfandikoo la ca jihaad ja bu demuti day melne, ne dem na ca xare ba moo kookee dem ñoo yemoo tuyaaba ay huwa misluhu fil ajri wat tawaabi ba tey kuy dem ca xare ba yow demo waye dang ko wotu samal ko gannaawum samal ko waa këram taxawu ko la nga man lépp loo xam waa këram ko aajoo nga taxawu ko ca day mel dem nga ca xare ba tuyaabu jum am ca xare ba rek nga am ju tol noona ndegam daa toll ci buntu dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla kon addis bi ëmb na ca lu bare bare ndax jihad ni mu màggee buñ ne ku ca jëm nga dimbali ko ci lum ca mën a yóbbuloo day mel ne yaag moom dem nga ci jihaat ja ba tey kuy dem ci jihaat ja nga taxawul ko gannaawam njabootam ak lépp lu aju ci moom kem sa kàttan day mel ne dem nga ca jihaad ja tuyaaba jum am rek nga am juna toll hadis boobu muttafaqun alayhi la wa وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحث يونيون بعضا أب يوننت إلى بني لحيان جمت بني لحيان من هذيل جوا هذيل faqala qala mu ne liyam bahis na dem na soqiko min kulli rajulayni ci bepp ci ñaari way ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar wal ajru te mbir mu yool ba baynahuma nekk na seen diggante rawaahu muslim abu sa'id al qudri mo net li ne yonante bi day ba muy yónnee ay nit ca banu lixyaan fekk banu lihyan booba dañu di ay yéefar bu ci yónnee nag bëgg ñu song leen nee na booba daa wax ne giir ku ne bu genn wàll ga demee rek mu baax mel na ñu ne ñaar nit ñu ne bu kenn ka demee rek na kenn ka toog sàmmal ko gannaawam te moom moomee dem ak ki toog te sàmmal ko gannaawam ñoo yemoo képp ci tuyaaba hadis boobu rawaahu muslim وعن ابن حباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي تسيرناك ركبا أي قور بالروحاء الروحاء الروحاء مكان بقرب المدينة المنورة فقال من القوم أنا كنت نونو قالوا نكو المسلمون نون أي جلت لنو أي جلت